Soldier Killer ACE Bundy. You know what I'm saying? Always down with Gambian Talents Promotion, holding it down with the whole entire team. Ace and Rap, Alibaba, Alabai, Soldier Killer ACE Bundy. You know what I'm saying? Always down with Gambian Talents Promotion, holding it down with the whole entire team. Kuboka Sigetigi, Nancy Melby, Baye Kenmo Mudekebe. Lu ci lolu moy président Jammeh président Jammeh ni mu leen fonkee woon ni mu leen óoloo woon ni mu leen joxoon noppam di leen déglu luñ ko wax fekkee lu war a def la dina ko def bu fekkee lu war a bàyyi ne daf koo bàyyi. demoon na bépp wan dee mu ne leen si biir xutba mu tàllal loxoom imaam taxaw maa ngi fàttaliku daal dee boobu imaam Faati mu doon xutba mu ne ko imaam gannaaw tey bëggatuma benn complet man li ma yàlla jox jox naa leen mooy doole doole boobu jox naa leen ko yéen itam bu ngeen gisee loo xam ne mu ngee dox dëppul ak islam taxaw leen ngeen génnee ko su fekkee mun leen si dara wax leen ma ko keroog incha allah dana fi dana fi génnee karaa xamu leen ne li génnee Jawhara State House fi moo gën a leen fi génnee ñëpp a ngi toog si waaw mu ne leen li génnee Jawhara fii State House moo gën a yomb yéen leen fi génnee liggéey bi ma leen jox yéen tansul bi fekkee mun leen ko def te yàlla tax ngeen wax ma ma génne leen fi indi ñeneen danañ ko def te yàlla tax man daal li ma yàlla jox muy doole jox naa leen ko jox naa leen ngeen mun a def ngeen mun a dindi islam kasu demoon nañ ba àgg ci doole boobu foofu moom waaw ba nga xam ne sax su fekkee ne kii li moo doxal du yoon dañ la oo ñu wax la one two three am nañ raaj su boobaa nag ñu jël step nag waaw kon tax gars yi duñu daan wax jaam yi dëgg ah, ah, ah, des na ci ñoom de wax na leen ko bu bëree maa ngi déglu sax bëri kii démb eh, am na radio déggoo radio bu ees la mm. mu maa ko dégg ñu teg kase eh, ci président Jammeh benn benn waxtaan boo xam ne moo ko doon waxtaan waaw ah, bi ñu waxtaanee ba ak ci Serif Malick Badiane foofu la waxtaan bi euh, closé waaw mm-hmm. ah, ñu ñu dog ko waaw ah, bu xam lu tax ñu dog ko ba Ndiogo Ba mu fa mu faa wax kenn aha boobu sax mu ngi wax abaa foog naa ne mooy bii relise euh, kii foog naa ne ama bagaw su la ama euh, baabali si ña ñoom ñaar kenn daal si ñoom mm-hmm. bi nga ko bayee boobu time boobu ji moo moo nekk kii naka la tuuti moom Ndiogo Ba secrétaire général mm-hmm. mungkin mungkin mungkin advice eh, ki ci ci so mana yow ñaa tanya wolo gaay fatu mm-hmm. bala ma tuuti fu ma kenyan fa kañaan yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu mm-hmm. dafa lek jefi nit ku baax ki mm-hmm. xam julli la oor yi la aj yi la zakat yi lu mën a doon safara di Kenyan, matabem jeex nañ bàyyi xel ci kañaan xanaa xamuloo ne troubles yu bëri eh, problèmes yu bëri ñu nekkal nii tey ñun añaan moo indi añaan muñ yépp waaw bahut, baaxut mooy lan ci misaal cere jaa ngi nii man xam naa ne mënuma ca lekk o ca lekk waaye xaram ma def ci suuf bi keneen du ci lekk loolu mooy kañaan fatima boo gisee lu doom aadama mën a njëriñoo te nga mun ko see dimbale wax la oo jëf la son def ko pour mu njëriñoo su fekkee yéen ko mën a bokk ngeen bokk su fekkee mun la see bokk waaye moom mun na ko jox ko ko waaw ñun alhamdulillah dañ xam kañaan naka la bonee moo all the time ñu ñaan yàlla comme ni ko yonent bi saasam doon ñaanee yàlla musal ci kañaan ndax feebar bi gën a bon mooy kañaan waaye xam nga li ñaaw mooy nit ki nga nekk moom ci njëkk ak tiranga Fatima ba dara desul lu mooy last minute nga jàmm ko loolu Fatima ta ñaaw na de ah, waaw ba pare ba pare xaaral ma ma ñëw su mm-hmm. fekkoon ne tey billahi aleyka ah mm. maa ngi lay waatal ci yàlla ne président Jammeh ñu defal fii tiranga ñi mu dimbale fii ñoo xam ne moo woon lu ñu mun tey nekkuñu woon fii nekka tey ah mu def leen ci tiraanga yu ak seen famille taxawoon nañ ci gannaawam. Hmm? Mm. konoon tey eh, APRC parce du jooy dara waaw waaye soo gisee mooy or gi waaw mooy jamfaa bi moo bëri. Mm. waaw ba fekkoon ne ku nekk dafa taxawoon sàmm kàddum démba Fatima. Mm. wallahi konoon tey eh, eh, APRC dina dana taxaw beneen taxawaay boo xam ne du ragal ci benn boor waaye léegi. dama lay laajte ana imaam yi ana mi yóbboon Mekka ñu mu daan jox ticket yi Mekka ak ñu mu daan jox ticket yi hmm? suñ mbokk yi ana ana ñu mu daan jox euh, Tabaski hmm? ana ñu daan jox sukkur yi hmm? district yooyu ana ñu ana ana ana ana ñu mu daan yóbbu ñuy faj yu feebar ñu mu daan dimbalee ñu mu daan lu nekk su ana ñooñu tey moom lay laajte waaye du gis kenn mu mel ni kon day bokk si ñi caali wala ñu tiit wala ñu ragal ah loolu laa waxoon ñett ñii fi nekk ku caalit wala ku tiit wala ku ragal moo fi nekka waaye nag dama bëgg loolu euh, Fat Fatima bu kenn ragal ku dul yàlla bu kenn tiit ku dul yàlla bul caalit mukk ci loo xam ne mooy li ñoo ooyee kóllëre kóllëre démb bu ko fàtte ngir tey Euh, loolu am na solo bu baax a baax a baax su ma gan seeni i gan mooy imam Ceesay imaam yi nga xam ne nag mooy imam yi APRC démba euh, tey tamit euh, ñëw mu nekk imam moom nag mu ne or baaxut te moom du or ñi nga xam ne ñoo ne dafa iñaane yeneen imam yi nga xam ne jamono ji ñoo dem baro moom nag iñaane wut yi dëgg rek la muy wax te yàlla tax imam ma bëgg a ñëw nag si li nga xam ne nag jamono ji moo limbi réew mi gars yi ñu ne maanaam leader ki nga xam ne mooy buur danga ko war a toog wa waruloo ko against kon yow war waroon nga bañ a Yaya Jammeh kañ dem na ñële dem neen bokk ak président Adama Barrow yow it danga war a dem bokk ak président Adama Barrow dan toog si sa ah, goxi boo pare bañ a bokk loolu baaxul ñu nekk buur dangaa dem si buur yaayam. alhamdulilah rabbil alamin. Mm. Fatou ma toogaat beneen toogaay. waaw toogal yaa ko moom. Um, su fekkoon ne dagan na ma jox la loxo. Mm-hmm. tey góor la góor nga woon. Mm-hmm. dana la jox loxo téye la ba mu baax. Mm-hmm. ma an sa la correction bi ma laaj ci ñu ma la téye ba mu dëgg. ma ak bi góob ma kenn mos na ko laajtee su nekkul yow. nga euh, boo laajtee nii. laaj ah. ba ma laaj nii. Mm. Euh, waaw buur dañ ko war a toppa mm. buur kenn war daa utee ak moom. lu tax ko yow bi nga xamni ya ngi nekkuna ne yaay jambe yaay jambe dem na kon kay yow da nga warona top abou adam bor mm-hmm. su fekke ne top loko da nga wara dem tok sa ya say tie sa euh Fatima alhamdulillah rabbil alamin ku ñu ooyee jigen mm-hmm. minut ne jigen dafa manki wala jigen dafa doy di axakee jigen ku mut mu ngi non mm-hmm. ku doy mu ngi non suñ yaay suñ ah, ah, ñoy suñ raki papay ñoy ñoo topato ñoy ñoy sutra, sagal ñoy ñoo sutra suma soxnam bu wax ba bari no imam mana? mune ma ah, yeen waré kay di ngeen di waré ndax yeen a koy deglu ba yeen a koy sétlu mu ne ko lan mu ne dem léegi ñu ne waaw yàlla mooy ku yalla jital dañ ko wara topa ñun lool la quran bi wax kanaa aaye alquran bi tey lam door a wàcce ci quran bi wala yéen gisu leen ko woon because 22 years ku nekk si biti Gambia sax waxuma ku nekk si Gambia su fekkee ne sax amuloo bët di xool sax yaa ngi doon di dégg Fatima doon a xew fii. Mm-hmm. opposition yaa gu bon. gu tilim gu xesaw gu salte ci anam gi ko defee. Mm-hmm. Fatima de laal nga tey da am xam-xam bu bëri bëri incha allah. Mm-hmm. Fatima yàlla subhanahu wa taala bu wax ne. qul illahuma malika al mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika al xayr innaka ala kulli shay'in qadir yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen ne man maay yàlla maay buur maa moom nguur maa koy jox ku ma neex maa koy xañ ku ma neex delu fi bu baax de mm-hmm. maay yéegal ku ma neex maay wàcce ku ma neex yàlla de subhanahu wa taala mm-hmm. mune mbole mbax tira nga xewal mun suma loxo bi man yalla mako amé di lu ok ay joju fatima samba bi ñoo wax ni topa, dañ ko wara topa ku yalla jital yalla la jital diw sangam yalla ko jital ne leen ko topa comme ni nga diggee ñuko adam baro yalla ko jital nañ ko topa mm-hmm. wow before kenn ci ñun ñi ñep suñuy bay mm. hein ah? waxuma la ñun de waaye suñ bàyyi sax bi foo ñoom ak seen bàyyi seen maam yi ay ji moo leen mag because alquran la wax yàlla la Fatima ndax dina nekk lu xel war a nangu ak njub ak yoon yàlla mu ne la walla sa boos mu ne la ma jox la par exemple la jox am bii yaay xeet bi ñun ñett yëpp ci sa gannaaw lay nekk di liggéey ñu am lu laa war a nangul am lu laa war a bañal mm-hmm. ba beneen boos ñëw lañ la doon nangul lañ la doon bañal ñu ñu ne léegi kooku rek boos bu njëkk bi lañ ko waroon a bañal waaye yow moom eh, sori yow lañ ko waroon a bañal waaye boos bu mujjee moom danañ danañ jël lañ la lañ doon nangul yow foos bi ak yu mujjee yëpp nangul ko ko moom. Mhm. ma seetal foofu bu baax yàlla bi ma wax aaya moo ñu mag ñun ñëpp waaye am na ñoo xam ne dund nañ ci 22 years mosu ñoo nangu ne jàmme kan du yàlla moo ko tegoon jàmme kon du yàlla moo ko jiitaloon. jaame kanaa du yàlla subhanahu wa taala moo ko defoon président nga nangoo dàq loolu nag tey na nga ne tey ki fi nekk na moom kooku moom yàlla moo ko teg waaye waaye nit ñi ne ragal yàlla te am na benn benn MP euh, ci euh, Foundiougne MP yi la hmm. mos naa dégg moo koy wax mu ne dafa am ku ku doon wax euh, ne ko yéen yéen a ngay mooy yàlla koo xam ne li baax mu ne ko hey demal nga toog ñun su fekkee ne ci mu misaal laa ko jox rek misaal mm. par exemple. Mm. su fekkee nga ne ci mooy yàlla lay nekk ñun ñaari at rek ak tuuti lañ amagum ci diina opposition la nekkul ci diina. Mm-hmm. waaw ak démonstration yi ñu def nii Fatima waaye lu boobu noonu ñu doon wax fii ay imam la ñu daan organise ay démonstration di xirtal nit ñi def démonstration nekk seen gannaaw ak ñi nga xam ne ñooy sponsor ñuy démonstrer ak ñi nga xam ne ñooy opposition yaay nekk seen gannaaw di leen dooleel. dem nañ ba nga xam ne lépp loo xam ne lu daaneel nguur la loolu la ñoo indi ci seen biir waxtaanee kaay ci seen biir xutba di ci di ci xërtal ñi nga xam ne ñoom la ñu waxal waaw Fatima yow man du ragaleel yàlla naka nga waxee démb yi ne opposition yaa dafa war a am démonstration dafa war a am waaye tey ci jant bi ma waxee yow kenn nanguwul fi opposition yaa kenn nanguwul fi démonstration. occupation gis nañ ko fi barki dem mu yàggu jamono yële. Mm-hmm. dañ leen daaxee nii lu kenn mun a xam. ñu duggee seen moto yi ñemuñu sax caméra bu baax di daw ba egg seen kër ñii furu furu furu furu furu Mouhamed mu may dégg Mouhamed boo ci bokkoon ah. soo léegi naka nga ñëw ba tey nga toog fii ne tey kenn war da oppose tey kenn war da démonstré eh, war da démonstré ak yu bari yoo xam ne diina moo ko waxoon bi foo tey moo tax li léegi nga dégg waare ak ak itam ma dégg ñu waare de waaw eh, ñu nañ waaree ci jàmm good ñun ñun ku ñëw pour tere opposition ya fekk nga ñu ku ñëw fekka démonstration fekk nga ñu ku ñëw pour waaree jàmma Fatou Samba fekk nga ñu. waaye oustaz. maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw Fatou may ma tuuti rek. lu tax ma wax la loolu mooy léeg-léeg gis waarekat bu toog nii. Hmm. tey topic gi waare mooy jàmm am na jàmm 22 years ñu ngi koo ootee di ci waxtaan wa am na ñoo xam ne mosuñ cee waxtaan ñi ngi waxtaan ci yoo xam ne billaahi wallaahi talaay am na solo waaye solo si melut noonu because Fatima sooy tala dem Mekka ak di julli ak di oor ak di dox sa soxla jàmm am su jàmmu amul Fatima doo tal yooyu kon ne leen ñu bàyyi xel xel moomu la ñu yàlla jox pour mu mun ñooy taataanal xam-xam lépp lu ñu wax ñu teg ci xam-xam lépp lu ñoo def ñu teg ko ci xam-xam moo tax alquran mu ne wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuaadu kullu ulaika kana anu masul bul mos a wax ci sa làmmiñ bi loo xam ne amuloo ci xam-xam oo leerul la oo wóorul la sa noppa bi itam bàyyi ko xel sa bët bi li mu xool ko xel sa xol bi li nga xelaat ci biir sax te génnagut yàlla ne xam ko mu ne te yëpp daana leen koy son ëllëg yow ataya waaw loolu am na solo imam kon yow 24 years yow foo nekkoon lu doon euh, dox si bi comme gars yi ko waxee bari na yow euh, déggul nga waaree waare boo xam nga ah, oppose Yaya Jammeh mos nga oppose Yaya Jammeh Fatima mhm. laa ilaha illa wallahi talahi président Jammeh dañ ko tooñ gis nga gis nga euh, li tax ñu am problème mooy mm. Ah, mm. nguur gi ni ko ame jaaru ci yoon nguur mii nekk fi tey ni mu ñëwee du yoon. yaayaa nu mu ñëwee woon yoon. bu bu bu wér bu wér bu nekkoo yow turi ku nga ko mën a jox waaye ku ne wax te yàlla tax. lan la def élection dafa ndànk dafa ndànk dama waxtaan ak benn mag boo xam ne ñu mag ñun ñëpp. Mm-hmm. mu ngi seebinti somti. Mm-hmm. mu ne ma doom mu ne ah mu ne yéen foog naa ne doo leen di bàyyi xel because ay ndaw ngeen. Mm-hmm. ci yaayaa fi ñëwee. yal ko yàlla yokk yërmande mu ngi mu ngi àllaaxira ma ne ko si naka mu ne. balaa waxtu ajuma ñëpp mën a julli ji da ngaa gis time boobu ñu ne la eh papa dara xewul jàmm rek lem leen julli ji dara jàmm soo léegi mu ne ma kon kii waxtu bu jot la yàlla indi ko ndax dégg nga ko dee mu ne kenn deew foo naa sax mbay géey woy na ko si woyam mu ne pa euh, paaka génnul mbaram euh, bal tàkkut jaasi génnut waaw ganaar deewut waaw su ma fàttali ko mm. waaw anyway daal li li ma wax am na benn paaka génnul keroog ci këram si génnul ci këram weñ génnul fetal tàkkul dara jàmm rek moo am. Mhm. soo léegi mu ne Kurétaan suñ ko ragal mooy guddi lañ koy def ki ñu koy def du fa nekk ba pare fetalante foog mu am fetalante am na reyante mun na am jaamina bi mooy ñëw loolu yëpp suba la ki mu def mu ngi fii ba pare dara xappunut ñëpp nekk si jàmm ak salaam moo tax su ma déggee after bu mu demee force 22 July am yenn am yu taxaw si télé bi di wax. Mhm. nan duñ may chance ñi nga xamne dañ ko bëgg magal pour ñu magal ko ndek ñaar fukki at ak ñaar yu bon la yo xamne ñi ma sa kunda jawo ci nguur gu bon gi fi nekkon amé bon bi fi nekkon tay yow momu di wax rang bi nga tak nun president jame mo la ko jox fi tax ñu xamne tay mo la ko jox da nga amul ngor rek te amuloo jom waaye so amul ngor te am jom am nga ruus billahi alayka da nga ragal yalla te xamne da nga dé sa rang si ñu génne ko teg ko ci morso dugal ci bamel te su boobaa buñ laa fenal itam yàlla dana accepté ne yow li nga def nekk liñ laa wax ne nekku ci yow yàlla ko raqam mhm. kon nañ ragal yàlla ñu fay naar si xoromam mhm. président Jammeh lu baax la fi def doomi aadama mhm. lu rafet la fi defal doomu aadama koo gis nag am na sayit bu mat am na sayit bu manqué yàlla rek a mat ifundoo ñi nga xam ne tey say ñooy wax ne def na loo xam ne raaytut ñoom ñi fi nekk sax tey fu mu nekk raayt naaw ñu ngi def loo xam ne raaytut yu bëri ci fànnum diina ak beneen fànn boo mën a xelaat ñeme koo wax wax ko ak ragal koo wax noppee ko rek di xultu rek moo fi nekk am na ku ma ko mos a wax mu ne ma sise ma ne ah mu ne ma noppalikul yaay moo fi nekkul rek moo tax gola gu nekk rek gën a taalal génnam ak làmmiñam di wax mm-hmm. waaye bu yaay nekkoon fii ñoom xam nañ kan moo yaay il faut ñoom ñu toog fii di par par par koo mën a ooyee nag naka la um, uh, um, tànk rank boo ko mën a rangal ak ndomba tànk boo ko mën a doxa jox fii hmm? la fii laa waaye moom ak yaaya rek ah? gis nga yaaya ki mbañ ah. mooy nit ku jubadi ñooñu nag ñoo ko sonaloon ñoo nekkoon ci ci biir uh, how to call it eh, eh, système bi uh, bukki yu sàngoo deri bëy yooyu noonu wala bëy yoo xam ne sàngoo eh, deri bukki fekk bëy lañ waaw soo léegi bi loolu xappu ne doomi aadama dafa war a bàyyi xel yaxyaa ni mu ñëwee mbiri yàlla la ak waxtu yàlla bu jot gisuloo kenn ku dee te am na ñu wax nu taxaw ci GRTS fii di wax ne bés boobu am na ñu dee laa ilaha illallah ñàkk ragal yàlla mu ngi noonu waaye li ma li ma gën a naxari mooy ñun ci suñ biir dafa am ñoo xam ne dañoo toog di déglu ñooñu ñu leen wax dara ba pare xaaral ma ñëw ci time jàmmi nga ne tax génnu ma time jàmmi lu maa génn dégg moo doon dox njub moo doon ak yoon xaaral de bépp imaam boo fi dégg am na problème billahi aleyka moo ko def moo ko def ñu xamante ni imam boo fi dégg ne am na problème moo ko def ma jox la loolu mooy misaal mooy la par exemple lan doon wax naa leen ko oo naa ne ooj naa ñoom ñëpp di all imam lañ daan xutba time jàmme nañ ko xutba this time billahi wallahi taala ñu gam ñu arrêté lu gën a woos waaye ku mel ni imaam euh, Babali imaam li si digga rek la daan nekk di wax li nga xam ne fiil na ne euh, ki nga xam ne mooy président Jammeh mu ngi ko doon def loo xam ne dafa romb moom mu def président laajte neen la. ah laajteel fu tontul foofu. laajte neen la lu ma la wax rek. dafa waare ah, xaaral ma ñëw dafa waare eh, ma ne. di seen tim bu la ci kenn nax. billahi wallahi talaay képp koo xam ne façon boo doon waaree gan eh, président Jammeh taay ma waaree ko dis taay ak loo daan wax wax ko noo ko doon waxee ak nga xam ne àndul. kon loolu dañuy defar naa defar naa defar naa xaaral ma xaaral ma wax la xaaral ma wax la. Ah, laa ilaha illallah Fa Samba. Mhm. gis nga li ñuy wax euh, sàmmkati mboota. Mm-hmm. moo gën a xam buy soox. Mm-hmm. ñu xamante ne mm-hmm. fil bi wallahi xam ne li ci nekk. xam ne li ci nekk ba pare li nga wax ni baaba xëy mel noonu. baaba léegi nga wax ni xëyul mel noonu xëyul rek mel ni ni mujjee laajal baaba fu mu fu mu njëkkee laajal baaba nu mu naan waxee first time laajal baaba lu ko indi ci lu mujjee nii bu dee pas cause du same thing laaj ko xëyul rek mel nii. lu bëri lañ la mën a wax laajee Fatimata please bu kenn jël sa maay bi pour ñu lawee la ko yow daal sa xam-xam fi mu em emal foofu rek waaye bul foo bul ñëw par par lu mukk defal sa diggante ak yàlla please ñaanal il faut mu fekkoon ne sa bàyyi bu la jur la sax bu ko faral ci lu du dëgg yéen sa sa moo ko wax mu ne unzur axaaka zaliman aw mazluma ji nga ay human rights yi léeg démocratie yi léeg freedom yi yi yëpp ay nonsense la yoo xam ne ni nga ko indi du islam ifundo oustaz bu koy dëgëral wala imam naa fexe yaa moo tax mu koy dëgëral waaye nekkul loo xam ne dafa correct ci islam Hmm? islam démocratie bi mu jox human right bi mu jox freedom bi mu jox moo gën a bes beneen. loolu naa bëri tey ah? bi ko sax lu tax ma wax la loolu mooy. Ah. naka la ñoo fekk ñun ñëpp ñu dëkk ci jàmm ak salaam. déggoo di demandoo ñun ñoo indi ñu loo xam ne daf ñoo xaajale ma ragal la nga ragal ma ba pare wax fi nekk rek waaye démocratie bi ñoo oote nekku fi. waaye kon Yaya Jammeh bu utoon loolu. parce que Yaya Jammeh xar xar xar waare te xam ne ne lu ma waare nit ki lu ma wax yow yaa ngi koo def waruloo koo tëj. Euh, par exemple ci lan. dañu naan waare comme yow léegi nooy ah eh, waare si yëf yi luy si dëkk bi comme yaay jaame bu mu reyee comme la ko gaawee ñu ne moom moo rey non non waa parce que ñoom ñoo wax du suma kaaru kaaru askan la déedéet waa yaa imaam uyu ñoo wax ne nga tenat eleven ñu sut leen si seen ñu wax you know ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñoom korosisi ak ñeneen di si waare yow da nga bëgg a wax baal ma Fatima. Mm. Fatima su fekkee ne dëgg lañ bugga mm. Fatima ñun ñëpp islam bi ñu jàngal xam nañ ko. Mm. xanaa déggu ma la wax fii. ay alquran la ci suratul isra 36 verse bul mos a wax ak sa làmmiñ loo xam ne amuloo ci xam-xam. dafa ndànk rek dafa ndànk xam xam laa hawla wala quwwata Fatima defal ndànk gis nga nit ñi. buñ dee doxee diine ak xelaat diine du xelaat. xelaat amul place ci diin mhm. gis-gis ay ting angaamira amul eh, place ci diina mhm. diina dangaa joxe fat yàlla ne yenentu ne boroom xam-xam ñi ne waaye doo ko indi féetoo oo par parlo oo lu ma neex. waaye yéen ñu bari a wane. xaaral ma ñëw yaaya ak li nga wax noonu. Mhm. dafa am ñoo xam ne ñoom bi ko salaam mu ne ku nekk ak palaasam. Mhm. alquran sa moo ko wax. Mhm. mu ne wa maa minna illa lahu ma maalum. ku nekk dafa am palaas. ku nekk dafa am palaas. boo xam ne foofu nga war a taxaw foofu la la xamee. on a léegi am na ñu saytuwoon buntu boobu mooy ñu amee wàllum luwaa ak yoon. on a waaye doomi aadama naka la ñemeñee jàmbaar mu toog fii moo rey. xale yi nga xam ne ñoo nekkoon eleven ten mm-hmm. ten eleven mm-hmm. loolu nga wax mm-hmm. so eble la eble ten eleven so aoudu billahi min ashaitan rajim ndax yow gisal nga sa bopp wala man ak keneen ya fa tànk de Fatima Fatima Fatima a ñëw ndax yaay mu ngi fi woon waaye bu dee moom moo ooda moom moo nekk di xam nga Faatuma man ci diine laay waxee waaw ok léegi imaam diine laa ko de bés lii mbiri politicien waaye man ci diine laay bés mooy ne mm. képp koo xam ne politicien nga ak képp koo xam ne euh, euh, naka la turati yaa ngi fi nekkoon. Mm. cest nekkoon ci gannaaw behind euh, this démonstration that démonstration lu fa nekkoon. Mm-hmm. ñëpp xam nañ lu fa nekkoon. am na ci sax koo xam ne foog naa ne yàggul ca biir Kaama rali bu amoon ci ministère yi retiré na ba ne eh, yan saa saa yéen nekkoon ci gannaaw xale yi. duñ ko fi nanguwaat ku fi génn ñu soxibal sa kaw ñii ne ndox mu tàng. dé dégg nga dégg naa mm-hmm. soo léegi kon nga xam ne kon nekkee li doon seet li doon li doon tuumaal président Jammeh seet na leer na te demagul mm-hmm. lu ñoo yàkkam du ni yëpp pour bugg dem indi lu ñaaw ak teg lu ñaaw ci moom mooy loolu noonu waaye danañ ruus mm-hmm. lu ñoo ruus mooy moo tax euh, doomi aadama nay doxee xam-xam doomi aadama nay doxee ragal yàlla doomi adama ne doxé gom yalla yow so togué né yaaya mo ray fan nga gissé yaaya mo ray wa légui imam ñu dem rek ci waxtaan xam waxtaan jamono ji xam waxtaan gis nga li nga xam mooy TRRC mo ñu téye waaw waaye yaa ngi seetaan TRRC bi bu baax a euh, baax gis né ñu bari bari ñew né ñu wax né yaaya jaawé moo ma wax ma def li yaaya jaawé mo wax li ci ci bi si TRRC bi da ngay doguma la doguma la képp ku ko fa wax dañ la force nga wax ko hmm. force dañ la force pour nga wax ko déedéet kenn waaw kan lo nit la ngaa force pour nga ko sa force sitting ak ñoom sax xëccoo bi dafaa dem ba tànga ngeen ñu ne ah we have to go break or coffee you see suñu dese waatee rek nga gis nga ceeñ ah noonu lekkul yolom yolom be xam ne bu ñoo ñoo xam ñu soldat da mhm. ko xam xam ko seen toogaay waaye suñu dese waatee dañoo mel ni xale bu ndaw boobu takk mara ah, waaw <laughs> di ree di semaay nga xam ne ndeysaan jikko jo jog na fa ngor yaaka dem na mhm. am na fu njaam yàlla moo xam subhanahu wa taala mhm. waaye Fatima képp koo xam ne wax nga sa diggante ak yàlla gis nga euh, tiarar si bi ah mhm. dañ cey def spécial li waxtaan mhm. coup d'état moo tax kenn war da foos nit ñi wala di oo nit ñi di leen jëmale si coup d'état correctul jaaduwul yàlla waxul ñu loolu subhanahu wa taala waaye tax ñoom daanuñu ko def 22 years yaa yaa ngi plan from plan to plan yaa jaame xam ñaata coup d'état ñaata plan lañ ko defal 201 during the 22 years ñaa ñaari téeméer ak benn plan lañ ko defal wàllum pour fexe jël bakkanam boobu moom dem na dama fàtte fi ma toog fi ma toog nii ñaata time la waaye dem na times yu bëri moom itam waaye plan plan defoon nañ ko toujours de ren one plan during twenty two years. foo teg loolu ah, fuñ fuñ foo ko teg. foo ko teg mooy ci yi nga xam ne moom lañ doon plan ak jàmme pour génne ko fi. naka nga xamee loolu yow pour sobotage boobu yee yes yes. na la nee lu si xalaat yàlla because non ah, non loolu nekkul loolu. because ñun dañ dee toppa newspapers yi dañ dee toppa news yi dañ dee toppa eh, wall news bi di déglu ba pare dem yu bari ci suñ kanam la waaw during the 22 years yéen amul benn yoon boo xam ne jaamee tukki na su dul yenn yenn loolu ne ñu ngi moom ci airport suy dem ak suy ñëw bokk nañ ci kilifa yi nga xam ne dañoo dem pour eh, welcome waaw waaye gis nga foofu sax dafa woon a gis ay naafeexe yoo xam ne si yenn imams yoo xam ne dañ daan dem foofu noonu ngir seen intérêt si bopp waaye demuñ fopp ngir bëggal seen réew wala ngir bëggal euh, tegal foofu baaraam bi suma gan seen i gan mooy ah. imam Cissé euh, mooy seen i suñu gan euh, mu nekk imam boo xam ne jamono ji la ñuy laaj lépp loo xam ne gars yi joxoñuñ ko imam Cissé mi moo leen koy waaw ku ñu maslaa ak yow ak waaw loolu am na ah, solo imam loolu waxi yàlla la waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg ngeen ne ah. ne tamit jamono bi nga xam ne dañ daan dem street house maanaam dañ la dee jeex foofu noonu dangay dem sax ñu ne la déedéet doo dugga ñu laa fight fight bu du jeex ñan ñoo la daan fight bari bari waaw mooy ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon yenn imaam yi ma nekk si seen ron waaw di leen dimbale waaw ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey diine bi nga xam ne moo ñu fa boole woon waaw coono su ñëwee daal si sa jogal si sa moom dog na ci coon waaye lépp loo xam ne lu neex la even ndoo tukki yi nii dañ daan tukki dem ci tool bi ànd ak moom imaam si xam accordé li diina bu ñëwee dañoo guddi gi dañoo bu ñu defee too be be ba guddi ñu dem di siikar di waare di siikar di waar nit ñi loolu na def guddi gi yëpp du nelaw moom imaam yi toog mu jël àllam bi jox ci ñu leen ma daan kii nag su ma waaye naka te man man gis nga yaaya dama ànd moom te yàlla tax mënoon na am ci moom njëriñ yu bëri waaw bi tuddee doom xam nga ba ñu ne ak ku la may jabar ñooyam mm-hmm. waaw defal na lu nekk waaye man dama ko def te yàlla tax wane ba de ñàkk a fay di wax ko ko wan kooku mu xam ko loolu baaxul nit ki soo ko tuddee doom daf koo xam ma ne yàlla tax ma def ko moom dem si jumaa ji ma ne du ma ko def mukk ma demee ñu ne ma nii na génnal système bu ma génna bi ko lu ma ñu foog ne xaalis moo fa yëpp man damaa daan pour déglu suma diine kàddu yu am solo daan jox daan jox ni son soo léegi ci sa laajte bi comme noo ko waxee nii léegi-léegi ah, loo lu mujjee laajte Ah, ma ne ñu ne leen dafa daan xeexu. ah waaw waaw waaw waaw waaw. ma mooy mooy suma mbokk yi nga xam ne mbokk imaam yi nga xam ne ñoo fa nekkoon. ma nekk si ron ah, di di leen jàppale di leen dimbale. waaye ni ma ko gisee rek mooy ku nekk ak sa xel ak sa xel lim la may ah, naa itam ne yàlla borom bi subhanahu wa ci jamono boobu ak fi ma toll ak li ma jox loolu la mën a am ah waaye taxu doon na ma añaane ci kenn lu mooy ku nekk maa ngi lay rafetal sagal naa boo fa nekk ak boo fa nekkul di la taxaw lu baax di la di la waxal lu baax mm-hmm. di la jàppale nag ci fànn bu nekk mm-hmm. waaw ba pare ma nekk sa bodyguard yow yow niti diine boobu leen fas ine lépp lu la pare dal sax na ma dal ma mm-hmm. waaw ngir lan because nga seet yow because taxawaay yu amoon waaw soo Fatima eh, ñun xamante nañ bi waaw ñun xamante nañ de imaam yi nga xam ni dañ nekkoon ful imaam dëgg tax leen a jóg ak yoon still naa ñu ngi fi nekk waaye ñi nga xam ne loolu taxuleen a jóg ba te ñun xam nañ xam nga xeex su ñëwee xeex ji nga xeex bi eh, nguur gi ñëwee toog fii mhm. ñu bëree ci bopp mhm. léegi nag bokk boobu mooy fayante bi mhm. ku ci nekk ku ci bokkoon rek xam nañ la man xam naa la yow xam nga sa bopp waaw fi mu nekk ne fayante la moo tax dañ lay jox place moo tax dañ lay jox place waaw waaye nit dafa war a ragal yàlla nit dafa war a gëm yàlla nit dafa war a doylu nit dafa war a gëm gis nga jamono jàmm ah? billahi wallahi tallahi Fatima ku fi ku ci amuloon dara doo ko amati feneen moo tax ñu bëri disappoint because lu ñu yaakaaroon ak lu foogoon amul te ñoom lépp lu ñu doon wax di ko joxañee jàmmi tey lu gën a woos loolu la ñoo def lu gën a tilim loolu la ñoo def bi ko jàmmi lu mu def ko def dëgg ak yoon ak njub du par parlu waaye ñoom kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi nekk. déedéet kenn moom moom doxal bu la ci kenn na bu la ci kenn gis nga démocratie bi nga demoon leen karaasal leen seen saay ñu bàyyi na nga without that rek non. <laughs> nga ne la nga Iba. démocratie bi ngaa dégg. Eh. nga demoon leen. Eh, demoon. waaw demoon leen ñoom ci liñ bëgg. on ah. sàn nga. Mhm. nga karaasal leen ci liñ bëgg. karaas waaw without karaasalu leen li liñ bëgg. Ah. nga karaasal leen ko demoo leen ci liñ bëgg nga demaleen ci rek am nga problème. ahanke ñaa imaam mu ne ko ahanke ñaa imaam loolu am na solo bu baax a baax a kon nag ah, suñu gan mooy imaam Cissé imaam Cissé mi nga xam ne nag jamono ji ah, gars ñu ne fa ut imaam xam nga boos non non non aoudu min shaytan aoudu billahi min shaytan Fatima ah. moo tax sax gis nga bi ma ooyee nii sax maa ngi xalaat ma ñëw ak ñàkk ñëw donc li daa doon bañ mm-hmm. li daa doon bañ man maa ngi fi toog fi ma toog maa ngi def lu am solo fii yëguloo mm-hmm. laa ilaha illa Fatima man nekku fii rek dama naa bind léegi lu yàgg a. waaw waaye comme gars yi lu. ma faam ma faam kolom xam nga bu tuddoon di compte turut. waaw déedéet eh, imaam lu gars yi di wax ah, ñu ne imaam soo gisee mu toog di wax all this negativity ak yooyu. non non non nekkati ah, euh, loolu lii moo ko waral. gis nga président Adama Barrow gis ko moo tax muy def li nga xam ne mooy ah, sabab yu important yooyu noonu. déedéet déedéet déedéet. ma ma ma président Adama su ko bëggoon a gis gis ko. naka su ma ko bëggoon a gis gis ko. noo koy gisee. man xam naa ko. man xam naa ko moo xam na ko. waaw man. Ah. xam naa ko moo xam ne ko ñoo xam nañu. si naka. su ma ittee la. Ah. wallahi looy def wax ma parce que man bëgg naa koo gis de. ana ko bëgg gis. Ah. jaara fi ñoo jaar. fan nañuy jaar. dafa am lu nekk dafa am buntu yi saa sala mu ne li kulli shay noo tarek lu nekk am na bunta waaw soo bëggee jaar nag si euh, yoon bi mhm. da ngaa nangoo aw si bunta mhm. waaw soo waaye kii Fatima. Mhm. su fekkee loolu de ah. ma ngi laa mhm. digle kon. Mhm. bi mooy nekk suma last programme ak yow. because de man bëgguma comme nit yi lu ñoo tingi xam nga man ah, dëgg la islam bàyyiwul dara waaye mbiri politique boo xam ne dafaa dem tilim dem ci fen ah, ak farfarloo neexuma xam nga mu bëgg politique boo xam ne dafaa tegu ci dëgg islam bi mu indi nañ wax bi fekkee ne sax li ma wax nii du am njëriñ. Fatou amul njëriñ pour ma ñëw pour wax fii sax. because bi maa use ak time bi maa use te amul njëriñ so please nit ñi su fekkee ne mën nañoo dégg ni te yàlla tax ñu seet li ma wax ne ki ko wax dañu seet ci man mi ko wax mm-hmm. ne seet ci yàlla mi ko wax Fatima ñu ne su fekkoon da nga fekk ni ko xam ne mu ngi màndi ba dem naa euh, kuma sarax ngir yàlla mm-hmm. mu ne yow soo amee lu ko sarax ngir yàlla moomu def jox ko ngir yàlla moomu waaye bul xool rek nga yow kàccoor bu bon bi yaa ngi màndi bu bëgg a nga jogal fi criminel bi am nga bàkkaar mm-hmm. because war loolu nekku sa diggante ak moom mhm. moom dafa wax ne ku ma dimbale ngir yàlla yow mun nga ko dimbale ngir yàlla dimbale ko mun la ko dimbale ngir yàlla bàyyi fa mhm. dina am ko mun a dimbale oo nga bàyyi mu firi hmm? waaye xam nga ñu mhm. ah, xam ne ñoom itam lañ fa nekkee ñu bëri laa ci xam de ci media bi ñu bëri laa fa xam waaw ah, ah. ñu itam naa fi xar yu bëri ci seen biir waaw ñu bëree bëree bëree ñoo xam ne nii xam ne ni ñoo demee léegi moo tax ñaari imaam am ak ñaari ñaari journalist. Mm-hmm. ñan lañ 2016. 2016. journalist am na fi. waaw 2016 imams am na fi. Mm-hmm. imaam yi nga xam ne. during the mosu ñoon nangoo wax dëgg nangu mosu ñoon nekk ci right bi di wax loo xam ne du dëgg du yoon. Mm-hmm. di xeex ki fi yàlla tegoon. nekk ci loo xam ne lu xaram la lu bon lu ñaaw. te ñoo ñëw di kafar kafari ak rambu. soo ko journaliste yi nga xam ne 22 years. ñu ngi daw nekk Sénégal ñu leen nga nekk US ñu leen nga nekk UK. ñu leen nga nekk euh, Jaamaan fu nekk lañ nekk. Uh-huh. di taal dëkk bi rek di xamb waa dëkk bi rek di xamb ñi doomi dëkk bi def leen nangam def leen nangam génn def nangam mosu fi taxaw ñëw. Uh-huh. saa yu bon ñoo xam nañ xam nañ leen ñoom xam nañ seen bopp bala mën a xam waaw du ci masla ak kenn su ma ci seen nii sax bëgguma laa jox loxo ndeg bon gi nga bon ci ñoom du ci xool kenn sax. ñu bari xam naa leen balaa ñoo def seen saa saasaa yi di daw dëkk mm-hmm. soo léegi tey suukal journaliste yooyu tey ñoo nekk nag ne ni lee léeg dañoo baax baax lu te gis nga wax naa leen ko il faut doo journaliste yooyu noonu ah nuñ doon waxee time jam jàmme di ko reporté time jàmme billaahi wallaahi taala suñ ko defee dis time am lu gën a robis woosis tey nañ ko def waaye léegi tey soo ko kolee rajo sax nga dégg ne waaw waxala yaran waxal ak yar ak teggin ak ndànka dégg nga mm-hmm. waaw bul saaga kenn bul xas kenn waaw soo fi bëggee wax lu xaw gi sax ñu teg téléphone. du gambien dalal waaw waaw waaw waaw fi ngay yéen. gambien dalal si moom waaw gis nga jamono ji gis nga jamono ji moo tax bëgguñ kenn sponsor. correct sponsor si dëgg soo bëggee dimbale gambien talent dimbale waaye soo leen dimbale gambien talent bu indi imam Cissé loolu du tax de. Mm. bul dimbale Gambian talent because of Imam Ceesay mm. or because of Fatou Saba mm. dimbale Gambian talent because ñu ngi make an impact in the society. waaw ñun moom ñun teg téléphone de. ba pare imam bu wax loo xam ne foog na nekkul loolu ñu ne la yaa imam foogaloo nii foogaloo nee. ñu waxtaan waaw loolu daal loolu daal mooy li gën li nga xam ne moom lañu islam tegal. Mm-hmm. waaw waaye li ma la wax rek nañ bàyyi xel. Mm-hmm. waaw nañ doon doxee ca jamono jàmme suñ ko doon doxee jamono ji lañ doon daje dajeeg moom. Mm-hmm. bu la ci kenn ndax faat faat ko ba pare fa euh, Fatou Samba dafa am loo xam ne euh, manqué manqué la ci TRRC bi. mooy. Mm-hmm. na te fonkante réew mi rapide dem nu mu demee nii développement dem. Euh. xaar ma ñëw soo léegi su fekkee ni dafa ñëw Fatima mu ne la. Mm-hmm. sa doom jógee ci biir jooy dañ ma dóor ne ko loo def bañ dóor la. Mm-hmm. waaye taa toogal fii laaxa ko du loolu dëgg du njub du yoon. kii toog ne dañ ko dóor dañ ko toccoo dañ ko nangam dañ laaj ko lu mu def bañ def ko loolu li mu def xam na ko. Ngaye Diama hôtel la ko daan wooyee uy ma léegi léegi waru ko woon sax because ji nga euh, criminel da nga ko wan ne criminel la saa saa kenn du ko teral moo tax dafa daan teral xam nga moo tax ñu ko daan euh, nakaat di ko di di ko or rek waaw comme dugal a ñàkk a jom moo tax waru ko woon a tuddee hôtel soo beneen bi mooy. nu mu ko waroon a tuddee. ah nu mu ko waroon a tuddee. nu mu ko waroon a tuddee mooy li yeewoo. naka. Ah, loo xam ne moom lañ moom lañ luñ moom ñoom luñ moom. seen kër la seen kër. seen ah, moo dëkk këram. Mhm. ah ñu ne indi la borom a jaar. fanaan borom a yaa fanaan. waaye ñu ne képp koo xam ne nga ne Yaya Jammeh waroon naa dugal nit si kaso. oo yeneen ak ne dafa fekk la. Ah? Fatima bés bi nga amee problème ak Jammeh wallaay ku bon la it na Yaya Jammeh daa laa rek moo tax nga koy tagal ay Fatima waaye itam ma waxal ñooñu mm. nay ragal yàlla Fatima mm. seen doom fi nekkoon si bitim réew nekk ci dëkk bi fii lañ ko doore def yu bon di wax yu jubadi daw génn dëkk bi laaxu lu tax ngay daw hm? lu tax ngay daw Fatima waxal am dama si théâtre bi nga seet gars yi ñu doon dawee ñu doon yoolee di génn dëkk fi ñu doon jaar ñu ne soo génn te dëkk bi tam ñu déedéet Fatima déedéet ma ne ma ne ma ne Fatima def ba loolu yaa ngi fi woon loolu daal man maa ngi fi woon keneen mu ngi fi before 22 li ma ñaka la yaay jaay ma may wax wax ma eh fatima moo tax man dëgg rek laa laa sopp billahi wallahi taala ya, ya, man ci ñi gën a sonna ci moom ci la bokk ci waxin ci waxin isi waaye man toppee mu ko njëriñ hmm. waaye yaay jaam suma njëriñ itam njëriñ suma mbokka hmm. te tey ñu ko fay ñu ko fay ñu ko fay eh, ñàkk tiraanga yëpp tiraanga leen hmm. te képp kuy dem ci ci arasé bi yaay defal na la tiraanga defal sa waajuri tiraanga ngor amul rek su ngor amoon tey duñ ko fayee li ñoo fayee te TRC soo gisee moo doxee sax xam ne dëgg nekku fa njub nekku fa benn yoon nekku fa waaw moo tax moo tax ni moo doxee islam gërëmul ko nangu ko eh, bi ko tax xaaral xaaral waaw dafa ñëw ngir xaajale ñu mhm. ñëw ngir benn lañu wallahi ñëw ngir jubale ñu mos laa dégg façam bu kaay nga toog ci public nga ne maa def lu bool li maa def lu bool nett lu ko ba pare man la kaay na may bu la koon ba nax nit yi la after soo waxee pare ñu bi nekkul ci suñ loxo waaw dañ laa rifaa la mënee jégal ñoo xam suñ la mën a nii nangam nangam gannaaw bu mooy eh, soxna Fatima eh, yàlla mu ne kan moo gën a nekka tooñkat koo xam ne dafa créer fen ah, fen dañ ko dee sos fen dañ ko dee toppatoo jagal ko liggéey ko waaw indi ko nit lu tax li yudilla naasa bi geyri ilmin nit ñi nga xam ne duñ yu seen xel ak seen xelaat mun leen cee réeralee mm-hmm. waaw ndég laan duñ ci am benn xam-xam ci jamono boobu ne lii nekke fen la lii nekkee lu amul la mm. waaye ñoom li ñoo jàppal li gën a bari rek mooy a ah oh, ndiki sa la melu o oh, ndiki sa def nangam gis nga yow réer yow bokk nga ci ñi réer mm-hmm. moo tax mu ne képp koo xam ne yaa ngi def loolu na nga xam ne yàlla du la mos a may njub ndax yaa ngi bokk ci tooñkat yi yal na yàlla musal si ñooñu. Mm. mooy ci sootul an'am aaya 144. beneen bi mooy euh, pour ñu ja xamal ni fen fen dafi soon soonu fen xam mooy lan faatu mm. faatu faatu mooy waxtu boo joxee xibaar ni nga joxee xibaar bi ak ni mu amee nekkul benn mm. loolu mooy fen définition moo la ko islam jox mm-hmm. nga ñëw ne nit ñi si téebal bi tak lii moo am fekkee deme fa noonu li taaj wu fa noonu loolu fenn moo xam nag bi nga koy wax yaa ko tey oo tayuwuloo ko bu fekkee ne tayuwuloo ko mun nga see ñàkk am bàkkaar nga tuub yàlla jéggal la waaye su fekkee yaa ko tey nag moom am nga bàkkaar on bu baax a kon nañ bàyyi xel ci fen fen mooy nga joxe xebaar ci mbir moo xam ne ni nga ko waxee ak ni mu amee nekku benn da nga mistake au mistake fi maa tëjee mooy yàlla mu ne képp koo gis mu nekk fenkat mooy ko gëmul yàlla mm-hmm. ak koo xam ne gëmut aaye alquran fati fatima mm. dégg nañ fii ci laas iya euh, ramadan mm. di ramadan am na benn sokal journaliste mm. bu wax ne moom su déggee alquran daf koy lakk mm-hmm. ñemeñut ko pour ko ba den moo ko gënal journaliste mm-hmm. mooy du journaliste Why, why, why, why, why you, uh, eh, 2016, naga, 20, naga, two, eh, how do you call it? 2016 journalist yi la. ba ban journalist la nga ñëw mu leer parce que am na am na ñoo xam ne xëy na seetaanu. Ah, hmm. alhamdulilah sant yàlla ci loolu soo xamul boppam. Hmm. ñu woon ko ko. wan ñu ko wan ñu ko rek ñu am imaam ñu ne ñu nga xam sa boppam moo gën ñu wax la ko wax la ko nag moo gën ñu wan la ko. waaw waaye xëy na moom bu ma wax loolu moom journaliste. xam xam xam moo xam tax moo wax loolu mooy. Mm. Euh, man mun naa wax ni. Mm. bokk na ci fenkat yi nga xam ni. Mm. ñi gën a jaxase Gambie ci la bokk waaw waaw te. moom xaaral xaaral xaaral xaaral waaw ku nekk nag na xool boppam mu gis ci boppam. o mu ñàkk se gis boppam su fekkee boppam la ci gis alhamdulilah. kan su fekkee ne gisu ci boppam mu xam ne moom bokk si. kan su si bëggee bopp bokk na gis. boppam dama ragal oh, dama ragal thank you. Ousseyn waaye moom du ko wax. Ousseyn wax ñu ok léegi Fatima. Ah. Ah, yàlla mu ne. Hmm. kii créé fen mooy ku koo xam ne duma ma gëm. Hmm. ba pare gëmul alxuraan ma ne am na fi soogal journaliste boo xam ne kooku laasu Ramadan. si biir weeri koor wax na ne moom buy déglu alquran dafa mel daf koy lakka ba tax na sopput pour déglu alquran moom musique moo ko gënal musique la déglu il faut ndoo weeri koor laa waaye déggu benn imam bu jox wax ci moom te tey te tey waaw kan la dama doog am midi rek mu agsi fii. dama doog am midi wa ma moo tax mooy la. yow dama xamul la imaam wax ñu kan la oh, oh, oh, ma gis nga man. imaam yow da nga ragal nañ ko jëlee noonu rek su imaam bañee wax xam le ne imaam dafa ragal. Fatima mm. la leen tey. Mm. gis nga ba jaxasoo. Mm. time in pass bi. man nekk wan imaam si ba mujjee wax ci GRTS. boobu affaire sax ngi jaxasoo keroog Adama Barrow doon war Sénégal waaye boobu ndax jaar na yoon fekk ko wàllu ndax foofu yoon la. ñëwal si traite bi rek. dégg jàmbur booda. ah bu dee dama la laajte rek dama la islam dëgg la bëgg a. déedéet Fatima Fatima non Fatima. Fatima loolu Fatima waaye waaye ne dem ci history waaye mosoo ko gis ci history mosoo ko gis ci history. dëgg te yàlla tax. man jàmmee baro yëpp em ci man dëgg rek lay wax. Fatima liy ragal yàlla. Imaam yow dina la indi waay Fatima gis nga ah? ah? jaamal yàlla baro jaami yàlla la. Mm-hmm. foog naa kenn ci ñoom bëgg ku leen di fenal man dama leen di wax ne fonk leen ñi leen di wax dëgga gis nga buur xaritool ku laa wax dëgg bul xaritool ku laa wax fen koo xam ne poosam betta kon xamoo jàmme loolu moo moo moo moo bokk na ci li ko ñi nga xam ne daf la jox leen biir ak biti waaye dafa am fulla ak fayda ba pare li wax nii amul xarit amul dara loo xam ne mun naa dox sa diggante moom lu dul dëgg ak njub ak yoon ak ko mën a doon ok xaaral ma ñëw léegi alxuraan mu ne kon nag moo tax ma ne journaliste boobu may wax noonu mm. ah, maa ngi koy xamal ne na dellu ci ay bii nga xam ne yàlla borom bi subhaanahu wa mu ngi wax ni gannaaw bu góor na bu jigéen ñi ma gëmul mooy ñi nga xam ne dañu weddi alxuraan mooy ñi nga xam ne ngëm yàlla nekku ci ñoom ñooy ñooy fenkat yi bu góor la na bu jigéen waaw journaliste moom ñaar rek la góor oo jigéen waaw bu mag oo bu ndaw waaw bu mag bu ndaw gor la na jigen mun naa nekk góor mun naa nekk jigéen ah, ah, ah. Ya, imam dalaf. daf ñu bañ wax bis bu ma la waaw ñi Fatima mu ne imam dafa ragal ngeen gëm loolu mu jeex waaye bis bu ma ko bis bu ma Fatima ne ko jigéen la o góor la ma jaara ko ci turam bi pat jógee naa sax seen ku lu yàggul ba mu ma ba la imam la defal dara ngay def non non non ko amal ko li ma lay jox dëgga ah dëgg laa laa wax dëgg laa laa jox mhm. soo amee sa kontaan ma gis ne da nga jubali damaa seet loo xam ne dëgg la pour ma dimbale la mais pare ma tegale si loolu na la baaraam ma nga déglu ma lii soo paree nga jox ma sa xelaat waaye nga nga seet nag waaw yar ak teggin asalaamaaleykum mhm. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ah, kon nag imam Cissé mooy woon suñu gan ah, imam mi nga xam ne tubaar fakala macha allah di la jaajëfal imam ah, mënoon nañ laa wax ne dañ la invite nga ne dégg mu nekk du gay wax waaw ku bugg a siiw yàlla rek mooy siiwal man soxlu ma loolu. Mhm. Hmm, man nañ ma bàyyi rek ci a ma nekk. Mhm. waaw siiw non audu billahi ko sax. imaam mi ne naxari na ko waaw ngeen ko a def ko naxari torop a ngi ah, dégg loolu. waaw ah, man daal dëgg laay laa indi si table pour ñu bokk ko ñun ñëpp dëgg boobu maa si yéen a ngi si ñu ñëpp a si bokk. Mhm. waaw buñ jël wax di ko féetaloo benn say. buñ jël jël wax di ko moomelee kenn nit nañ boko wax bi ñun ñep ñu sét suñu bop ko xamné yang ci si yoon bu jub bi bu baax bi alhamdulillah fekkee da nga wacc yoon bu jub bu baax bi seetal sa bop nga ñëwaat téggu ci yoon jërëjëf yàlla yalla yalla yalla sàmm suñu dëkk bi amiin yalla yàlla yàlla aar amiin musal amin yalla ah, defal ñu jamm ju bëree bëri xew yu bëri ya nga yu bëree bëree bëri ya wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi sallam uh, asalaamaaleykum uh, mbokk yi yéen ko gess imam Cissé moy woon suma gan uh, di seeni gan bi parce que media bi mu ngi fi leeral képp koo xam ne am na loo xam ne yaa ngi ko bëgg a leeral indi leen ko kon nag Imam Ceesay mooy woon suma gan di seeni gan te incha ajuma dinañ dem si fi nga xam ne nag mooy jumaa ji nga xam ne nag foofu la mooy jumaaye maanaam foofu la moo jiite ah, def fa ay samon yu important ak important samon yi nga xam ne ah, dëkk bi nga xam ne moo fay xew yooyu la mooy jër nag di si waare ñiti kon nag gis sa boppa gis si suma boppa yëpp la ñuy def ah, bu boobaa nag